wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri man abaat am mbégte bu baax ci tubaa ci kanam ndax fekk nañu foo xam ne ci jafe-jafe yu yi daara baaxoo àndal rek muy ak tumuraanke kon bu yàlla dogalee ñu ñëw fii waa tubaa ci kanam ñëw fas yéenee defar daara ji ba mel melokaan boo xamee ne dinañ ci mën a jàng alxuraan méngoog barab alxuraanul karim ndax ku ne xam ne ab tàmbalikaay la waaye barab alxuraan moom ku ne xam ne ndaa am nu mu war a mel waaye nag dañuy wax ne lu ne la fa ñuul moo di fa moo fay am ñàkk euh, ci lañ mën nekkoon man cee jàpp ñoo fas yéenoo fas yéene cee jàppale ñu ngi leen sant baax di leen gërëm di wax ne lépp nag mi ngi amee ci suñ suñu ndimbalul kilifa yu baax yi waaye ci soxna Astou mi nga xamee ni fu bokk jàmbaar Touba ci kanam yi ak soxna Bintu Mbàkke ndax fii yow nañ fi lu mat fukki bolog yoo xam ne yëpp dañ koy dagg bu mu jeex te ci loxoom la nekk moom mais yàlla dogal man mi la àndal ci mbind mi ak waxtaan yeeg yëpp ñoo ci ànd sëñ euh, baar Mbàkke mi mën nañoo seere ci lu bëri ndax dafay lu bëree bëri kon nag bu li amee ak cant doon gu wér a wér guñ cant waa Touba ci kanam. sëñ Cheikhouna mii nga xam ne mooy la daara ji di xamle ne daara ji yàggagul waaye ñi fi wàcc bari na lool lool gone yu bëree bëri wàcc nañ fi rawatina sax gone yu jigéen yi gone jigéen yi li fi wàcc yaakaar naa bu mot jege na ko lool jege na ko lool te daara ji taxagu ko yàgg lool xam naa juróom benni at wala yooyu lay toll nga xam ne moom dara moom itam du yitteem lu sax ci njàngale mi rek loolu dong mooy yitteem amul benn fu muy soxla mbaa muy jëm fenn mbaa muy defee dara euh, loolu nag euh, li tax ñu ko jigéen di sant mooy ñu bare bari ñoo xam ne dañoo tolloog moom ci ay at jamonoonteeg moom leneen doon na seen yitte lu dul lii kon nag bu sunu boroom dogalee moom lii rek di yitteem mu fonk ko jox ko léppam dañ koy sant bu baax di ko ñaanal xam naa di ñaanit ngeen gën koo ñaanal taxawaay yi gën a gën a dëgër gën a rafet ndax yéeneem ci daara ji moom xel sax mënu koo kii xelal ko mën a kii waaye xelam yi sax mënu koo tudd. ñuy leeral rek lenn ci liggéeyu commission scientifique bi nga xam ne. comme ni nga xamee mbooloom Touba ca kanam mbooloo la moo xam ne dañoo ànd ngir taxaw liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii di Touba ànd koog taalibey Serigne Touba yëpp nag. liggéey boobu nag ci ay xeetu liggéeyin yu wuute la ci bépp wàll goo xam ne jàpp nañ ne dëkk bi dina koy tëwoo Touba ca kanam taxaw na ngir liggéeyal Serigne ci wet googee. liggéey yooyu nag dara di ci jiitu liggéey bi te mooy bi ndax mel ne nit ku koy kuy dàkku ngërëmam jàpp naa ne dàkk ko ci toolu boppam mooy gën a gaaw te nee na toolam moom mooy alxuraan wax na ni bu fekkee am na luñ koy doon luñ koy donoo ñu di ko tuddee nono bi xidmatil kitaabi wala aadi si la wax. kon day mel ne noonu am li gën a rëy mooy alxuraan kon jàpp naa ne liggéey bi dara gënu cee rëy ci liggéey bi Touba di liggéey Touba ci kanam di liggéeyal sëriñ bi dara gënu cee liggéeyal ko ci toolam bi di moo tax ni nga ko xamee at mu jot Touba ci kanam taxaw yëkkati mu daara ci dëkk bi xool liñ gën a aajowoo ci la mënta ñàkk ñu defal leen ko fa loolu nag tàmmale woon nañ ko daaw defoon ci lu toll ñaar fukki daara ak juróom-ñett ren jii nag yokk nañ ko ba mu àgg ci limu juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk it niñ ko doxale mooy kenn ku nekk xam na ne li ci wàllu daara yi ci dëkk bi Cheikh Mouhamadul Mountakha hafisahullah waraa rakam ju baax ji di Serigne Mamor la ko dénk mu di ci liggéey liggéey bu rëy boo xam ne xaaru ci kenn it lépp def ko ca kem kattanam ànd ko taalib yi mu ko àndal loolu it moo tax Touba ca ñoom ñu wax ne bala ñoo def dara dañ koy tàmbalee ci moom mi nga xam ne moo lañ dénk boobu liggéey joxoon nañ ko limu fanweeri daara yoo xam ne moo kuréel gi mu àndal ñoo ko tànn jëbal ko Touba ci kanam waaye lu jiitu loolu fekkoon na mu am ay demandes yu fi nekk yoo xam ne matoon na téeméeri demande yu tegal loolu it ni ko doxalee mooy bëgg lépp jaar ci maandute moo tax na bi sëriñ Mamoor joxee fanweeri daara yooyu lim bi gi des dañoo jël demande yooyu ci kayit yi nekkoon lem leen teg leen ci barab di jukki par benn ci anamu tànn ngir bëgg rek mu doon lu tegu ci yoon ñëpp maas ci yem ndax àq la joo xam ne ñëpp ko bokk loolu lañ génne limboo boobu ci topp war a mot li juróom-ñaar fukki loolu mooy xaaj bu njëkk bi ginnaaw bi ñu ko génnee xaajum ñaareel bi mooy daara ju nekk daam ay nattuwaay yoo xam ne moom la Touba ci kanam teg ne daara ju nekk bu ñu lay tànn ci anam yii lañ lay tànne anam yooyu nag mu ne su koo xam te di muñu ci daara yi ci bërëb yam nekk moo tax commission scientifique ànd na ko réalisation ak commission étude ñu wër lu toll ci ñeenti ay bis tàmbale woon ko ci le 14 novembre ba lay passé alxames yi jot ñu wër ab lim ci ay daara tàmbalee ko ci penku dëkk bi tàmbalee Lansar jëm ci jàkkee si Ibrahima sëñ Modou Xabaan ñëw ci domaine ba wëlbati ko jëm si xaw ga noonu lañ ko wëree ba daanu ji ci daat dem dindi nga xam ne ñeenti xibla yi féete dëkk bi yëpp xibla gi nekk daara ja fa nekk fekk nañ ko fa laaj borom daara ja ak la muy soxlawoo ak lam aajowoo ak ndax sart yi tegoon ngir mu yeeyoo liggéey bi am na ca wala amu ca ci noonu lañ ko jaaree bu muy xaajum ñaareel bi ba tànn ci juróom-ñaar fukki daara xaajum ñetteel bi mooy ndaje mujj mi mujjoon def ci ay bis gi jàll ngir tàmbali liggéey bi tey ji nag mooy bisu tàmbali bi ñu war ko tàmbalee fii ci kër Serigne Cheikhouna Dioukhane mi kon loolu mooy li nga xam ne commission scientifique bi ànd na ak réalisation ci njiitul Serigne Souhaïbou Ridwane Ndoye taxawal benn comité pilotage boo xam ne ñoo seq liggéey boobu anam gi it lañ ko tànnee ngir bëgg lépp tegu ci maandu amul xaj ak seen ndax liggéey la boo xam ne ñëpp ko bokk alal ji taalibe Serigne Touba yi ñoo ko moom liggéey bi Serigne Touba lañ koy liggéeyal ci dëkkam bi kon amul xàjj amul seen noonu lañ ko tànnee tàmbalee nag ci juróom-ñaar fukki daara yi incha allah leneen ñi nga xam ne defoon nañ ay demande te génnuñu ñoo xaar incha allah wërngalub déwén bi bu soobee yàlla nii rek lañ ko fas yéene demee ñi nga xam ne ñoom dañoo bokk ab liggéey muy seen daara yi ñun ay dogge daara rek lañ seen daara lañ tim kon tey jii fii ci daaru mën naan bokk ci pàkk yi sëriñ bi njëkk mu njëkk bu jógee daal wàllum xabiir fii la ñëw si mooy ñetteelu mm, jéego bi sëñ bi jéego bu jógee daaru salaam ñëw daaru manaan doo ñëw Tuubaa ñu ñëw di wax fee tàmbali daara alxuraan joo xamante ni waa Tuubaa ci kanam ñoo ñëw ngir jaay di ko sëñ Tuubaa te ba ñu tàmbali liggéey bi dañoo wax ne képp koo xam bokk lañu ñëw pas-pas na ñu ànd ñoo jaay di ci liggéey boobu gis nañ jàppoon nañu sax kenn du ñëw ndax suñu lot ak suñu xeebu ci boppam ci xeeb suñu bopp ci bëgg yi bëgg sëñ bi waaye nekkati woote am na ñoo xam ne ñoom sëñ bi yàlla na leen may sant xam ne ànd naa ñoom ñëpp kenn ku ne ci ñoom dafa mel mbir yaa gën bëgg yaanu yaanu gën a soññ dañoo jël coono bi yëpp yanu ko ba daf jox ñu sag bi rek waaye doon ci dara sëñ bi ñeen sant wax dëgg gërëm te nga xam waat bi nga xam ne ànd maanaam ñu ko ànd yow fas yéene ci jàppale sëñ bi ci sa loxo loxo teg dañoo fas yéene liggéey yi xam ne sëñ Tuubaa mi ngi koy liggéeylu te liggéey bu nekk sëñ bi am jawriñ jum tànn teg ko ca loolee di ko doxloo ñu fas yéene liggéey boobee waa Touba Ca ko jàppale ko yow ci liggéey boobee bokk ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey sëñ bi alxuraan mooy ab toolam kon nag toolu suñu Touba ku fay bay ku dikk jox la ndox wala mu ñëw bay la ab gopp war nga sant ko kon mbàkki ñëw nañu ànd yow ci liggéey boobu yi ndax dañoo waxoon ne kenn ku ne la sëñ bi jox dañuy dem ko ne kat waa Touba ñëw nañ nga jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom suñu Touba liggéey loo bi ñu xamee ne yow lañu jox liggéey bi nga xam ne muy muy muy daara alxuraan yi ba ñu def ba ñu dara dara waa ñu wax kenn dara dañu ñëw ba ci waxtaan waxtaan ak yow muy daaw nee na sëñ bi kat dañoo bëgg liggéey sëñ Tuubaa ci jàppale ci liggéey bi nga xam sëñ bi teg na ko si loxo te gis na daara moom Tuubaa daara la du wii du dara ndax bi ko doon sëñ ci daara tax mu sëñ ko ak jàngal alxuraan ak jàngale ko ñu ndikkee nga jox ñu ndigal ñu ànd ko yow bala ci def ko si néew ñu xeeb ko loolu ndax waroon nañ tey jii dëgg la hôpital yi bari nañ xaalis yéen yi bari waaye daara yi dañ ko war a étage ci suñu yéene dafa suñu yéene yem foofu incha allahu taala li ñu ko wootee bu ko ko muy bu ko mu wuy see wuy see rek day li ñu bëgg ko am euh, waxoon naa ko sëriñ bi keroo ci daje boo xam ne yéen ne ko Tuubaa ku dëkk waroo fay ndox waroo fay courant dépassé waroo ko joxe ñu bari jafe na ay daan kat laa wax te dee daanu kat sëriñ Tuubaa day ko xam ne euh, ndab loo ko taal mu duyal ko kon nag suñu ndab lu toll ne asamaan suuf sax ñu tàgg sëriñ Tuubaa dañ ko daanaka du ma mën a bañ jaar mm, te lépp lu jot ñu dikk leerañu ko daanaka tur yi rek lañ ci am mm. waaye coono bi yëpp ñoom yor nañ ko kon ma nga ñaanal ma ne suñu borom dimbali ma dimbali ñoom ñoom itam ba mbir bi buñu gis suñu bopp mukk ci àdduna mm. buñu gis bopp dañ xam lu mu rëy rëy Sëriñ Tuubaa rek la ndax ñun bëkk si bi dañuy dàkk te suñ bi yàgg nañu ku ku làkk ngërëmam am ngërëm suñu borom te ngërëm suñu borom ñun gaa mënuñu ci àgg ñu fexe kon ñu ngi sant di gërëm tey ñaan daara ji yàlla fi yàlla de barke def ko ci daara yëpp suñu borom suñu soxnaa jërëjëf fi ñu ko tàmbalee foofu la rek la euh, daaru mën naan di ko tàmbali ko Cheikhouna kon alhamdulilah daa mel ni suñu euh, yàlla yàlla defal mën naan <laughs> wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ Mamour nee na cant gii ma nga bàyyi ko ci sëriñ Mountakha Mbacké taxawaay bii nga xam ne day Touba ci kanam mi ngi ko taxaw ci daara yi ndax xam ne ne daara moom amul lenn lu tolli moom sëriñ Touba daana wax ne képp koo xam ne kii da ngaa fanaanoo yéenee ne su ma xëyee naa xëyal sëñ Touba soo xëyee rek xëyal ci alquran jarul ñëw di ma laaj looy def xëyal rek ci alquran kitaabu laahi huwa bustaan yi loolu nag sëriñ Mamor ni ma ko xamee noonu la ko sëriñ Abibu xamee ba tax na Touba ci kanam bi nga xamee ne bii jëmee Touba ci kanam rek la xam na ne jëmee Touba ci kanam dara mënu cee jiitu alquranul karim ndax dëkk bi sëriñ Touba nee na moos daal gémmiñ kenn mucc ci ñu ne ko Mbàkke ba ci yow mu ne ba ci man ñu ne ko luy sa gémmiñ Mbàkke mu ne sañ toon Touba bëggoon faa toog di jàngale alquran te ñu dox sama digganteeg moom loolu nag kon bu fekkee ne tey jii ñoom ñii doon njaboot ak Serigne Touba gi doon taalibe Serigne Touba ba noppi nag ñu am jawrin ju yëkkati liggéey yu toll ni Touba ca kanam ak daaree alquran yi teg ko ci seen loxo ñoom ñaar ñu bokk bëgg-bëgg bi joxante loxo di jàppalante loolu de kon ñun ñëpp ñu ngi ci bokk di sant Serigne Mountakha mi ngi ciy sant kon de Serigne Abibou wax dëgg yàlla daara day moom. desut gannaaw ci liggéey bi Touba ci kanam nag jëmee Touba ci kanam la Touba nag jëmee ko ci kanam defar dëkk bi la defar waa dëkk bi la tabax la tabax dëkk bi ak tabax nit ñi daara nag mu ngi bokk ci ñi tabax nit ñi kon sëriñ Abibu su fekkee mbooloo mi nga jiite da ngaa def ni lu jóg lu ne balaa nga cee def dara rek daara ngay njëkk a sédd ndax ni nga ko defee nii ni ko kii waxee léegi daara yi fanweeri daara nga yëkkati jox sëñ Mamor ne ko tànnal daara yi nga xam ne gis nga ne aajowoo nañ ko yittewoo nañ ko nga jox leen ko soog a def leneen looy def yemut ci daa yemut ci ay mbaar ay wanag ay néeg yemu ci lu ne tabaski gu jot daañ jël lu mat ñaar fukki daara ak juróom-ñett dimbale leen ci luñ mën a jëndee xarit tabaski dañ koy def ci gàmm yi dañ koy def ci basang yi dañ koy def lu ne lépp loo xam ne lii lu daara yittewoo la te Touba ca kanam am ko sëñ sëñ Abib Mbakke yëkkati na ca ab lim bu takku ngir xam ne moog sëñ Mamor ñoo bokk daara yi ñoo sëñ Mamor ñoo bokk daara yi sëñ Mamor gënu ko cee yee xanaa kenn ku ne da ngaa am ndigal nekk ci sa ndigal rek waaye Touba ci kanam sëriñ Abibu Mbacke gënu cee yeey sëñ Mamor sëñ Mamor gënte yeey sëñ Abibu Mbacke ci daara yi moo tax li may wax rek law bee neex a jàngale pël ñoom yal nañ fi yàgg lool te mu ànd ak yokku waaye suñ fi àndee te daañ yal nañ fi yàgg lool te ànd ak wér yokku di xam ne moom la sëriñ Touba bëgg ci dëkk bi bëgg ko ci taalu bi kon incha allahu dana am. gis nga Touba ci kanam mi def ci alal jombut kenn ñëpp la warit nag seex si seex si dong rek seex si dong rek laa wax waxuma tal seex si dong rek kenn ku ci nekk rek seex yi dong rek kenn ku ci nekk mënoon ngaa wàññi ñaata taalibe nga am nga tegal leen nga nga tegal leen kenn ku ne douze mille francs muy at mi yëpp ku ko ci def balaa suba beneen taalibe dina ñëw jox la lu fukk loole lu fukk ca loole kon nag sëriñ Abibu lay nee na mi ngi woo seex sëpp mi ngi woo seex seex sëpp mi ngi woo bokkam yëpp mi ngi woo taalibe yi yëpp woote bi nag sëñ bi jaxalana allahu min allasina yastamihuna alxawla fa yattabiuna ahsanahu woote boo xam ne bii woote bi yàlla la woote bu jëm ci Serigne Touba Serigne sëtub Serigne Touba woote ko taalibe bi Serigne Touba di Serigne Mamor Mbacke ak Serigne Abibulaay Mbacke woote booba dee woote bu jara wujji la ya adul ya musil ya man anta mujir ya xuna ya muminun fa abadan kun muminan ya sal jalal min kulli suin wa asabin wa dalal yaa man ala an zawjatin wa an walaat hudni wa ud jamia alisal balaat wajalilaahi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manabat wajalilaahi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manabat وصلي علي عبد الصلاة وآلي وصحبه سوي الصلاة وكل من قدمني أو سارا فنجني واخرج له أو سارا وكل من آبني أو مالا إلا يفعس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين ولتقضي مسا يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بنا علمي وامل بسنة وعلمي وجل إلهي maskani Tuubaa baat misras mi abi jaayi xayri ma nabaat